salaamaaleykum mbokk internet euh, igfm point sn te dañoo mbégte euh, kontante di dalal ki nga xamante ni euh, moo di Oumou Sow donc Oumou Sow nekk na koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal donc tey dañ koy dalal pour waxtaan ak moom ci anniversaire am bu rëy boobu noonu nga xamante ni moom lay def le 13 mars. fële ca donc 25 ans de carrière du du benn fan du ñaari fan donc tey Oumou dañuy kontaan ci dalal bi ñu dalal di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. maa ngi leen di nuyu di di leen bu baax le euh, ci Amazon boutique di ci di ñuy sétane di leen wax 25 <laughs> ans de carrière 25 euh, ans de carrière ça se fait inshallah euh, parce que 95 le je Aziz décoré won meilleure actrice Oscar des vacances boko xolé ba légui 25 ans la anniversaire les Amazon c'est le 14 mars mais bo xolé bu minuit joté rek presque day le 14 mars day jot donc ñu devons ñu def ko le 13 mars Sorano euh, muy deuxième édition parce que 93 là fa mujjee on dem wa inshallah donc euh, pourquoi pas kon demande Grand tête wa xam nga adina mom loy def da ngay def confirmation comme demoon na fa bële passé ñu naan dina fess du nous mu fess ñu né jinné yee ñëw kon xana bi yor leneen ay ñëw <laughs> léegi su ma confirmé fan si d'accord. incha allah ñoom nag ñoo may yóbbu Grand Théâtre incha allah. kon bii mooy confirmation bi. waaw bëgguma burle état bi. <laughs> d' donc euh, lan lañ mën a xaar euh, le 13 mars. le 13 mars li ñu mën a xaar mooy euh, Oumou Sow dina indi lu bees dina indi ay surprise yoo xam ne ne mosuñu ko gis ci biir aaram dina wone tamit li nga xam ne ne mooy talent bi nekk ci moom nga xam ne da doon nelaw ci moom te incha allah dina yeewu jour boobu. ndax ndax euh, sama ñi nga xam ne ñu ngi may jàppale ci musique bi ñoom it macha allah ñu ngi may travailler ci yu bees sax yu rar, yu neex sax ah, macha allah. dafa am ay chorégraphe yu bees ou pas. waaw xam naa chorégraphe yu bees du mun a ñàkk parce que maître chorégraphe lañ SODAV euh, conseil d'administration bi laa bokk di nuyu Ngoné Ndour de passage sama PCA donc loolu du mun a ñàkk dama koy jox nag sama yeneen élément samay élève ñu monter. donc parce que moment bob fo nga concentré wu ci son yi ngay génne et tout donc euh, mën jox euh, spectacle bu amana ñi ñi nga xamné ne ñoo dëgg seen ticket pour seetaan si la. Euh, comme ni nga ko waxee chorégraphe bi dang koy jox ñeneen mais sa tank bu naree xasan est-ce que di nga mën a tarwaay yi tamit. <laughs> alkaati du bàyyi dóor ndax ci bi spectacle bi fo nga defaale ay fête lool moom du mun a ñàkk moom. ndax day am ay artistes invités. waaw artiste invité day am parce que Oumou Sow moom comme Oumou Sow Sénégal euh, national international ak si dañ ko bëgg euh, lu ñu xewle dañ may woo kon nag euh, damay woo ñëpp incha allah dinaa ci woo ñu bëri naa yëkkat sama téléphone woo leen parce que affaire bi moom Oumou Sow moom affaire yu ñëpp la moom waaw macha allah. ok lan lañ mën a xaar comme son ndax dafa am album booy nekk di préparer wala single yi nga jot a génne yooyu nga fay. yi ma jotoon génne dina am remix mais dina am yu bees yoo xam ne dinañ ko tëggaat. Euh, jox ko euh, ñi nga xam ne ñooy fans yi ñu enjoy ko parce que foog ñu indi leen mbalax bu saf sàpp boo xam ne ni incha allah dinañ def clip bi avant anniversaire bi incha allah. Euh, day am ma ay artistes invités. waaw dina am artiste invité moom artistes yi moom nee nañ ma def surprise rek parce que dina dina metti moom parce que képp kuy ténor moom. ah di waykat fii parce que dama ci rendre rendrale hommage sam papa Sosa Boor donc xam nga loolu moom loolu moom du mun a ñàkk moom waaw. <laughs> sa papa nekk na koo xam ne nit yi dañ ko xamoon wala. sama papa moo doon premier manager Youssou Ndour euh, Sosa euh, mooy fondateur du Super Étoile sama la Sosa Boor. waaw d' accord donc euh, nekk na lu ku la influencé nga dugg si li nga xamante moo di aar wala. waaw euh, parce que sama papa euh, ñoom biñ doon répété Medina ak Youssou ñoom buñ daan dem Gambie dañ ma daan yóbbu léegi nag bu ñuy répété euh, buñ bu ñuy dem Gambie di ma yóbbu léegi nag loolu tamit inspiré ma ba sama nijaay Amadou Boli nekk premier fecckatu Baaba Maal nekk professeur de danse aux États-Unis moom it am loo xam ne def na ko ci man yàlla nag moo def loolu nag affaire bi nag ma màggaaleeg moom nekk euh, dem Jean de la Fontaine euh, Fontaine jàng fa ba cinquième après ma bàyyi parce que mujj gi aar moo nekkoon ci man daal ma dem exploité ko. donc euh, comme ñu gis génne woon nga bombal yow ak Guigui ñu bëggoon xam sa collaboration ak Guigui nan la demee. waa Guigui moom sëram laa musa doon lu dul ay affaire u aar. chaque pack daf may indil ngalax man chaque tabaski ma yónnee ko mu togg defar ak ndawalam macha allah defar mu nekk nit ku baax buy def clip woo ma ne ma umu loo may conseil lii ak li ma ne ko lii laa lay conseil ñu dajee woon nag euh, salon onglerie de VIP Ndeye Coumba ñu koy nuyu de passage euh, falaa ko fekk gis ko mu stylé nag am caac ma ne ko yow yow xanaa yaay Rihanna Sénégal yaa ngi defar ba mu baax xam nga noonu nag mu kontaan ci loolu ndax mi ngi doon doog a génn et tout te maa ngi ko doon apprécier léegi nag ñu jëlante numéro foofu lañ xamante garder relation bi nag ba ma gis ci moom amour ak yéene bu mu am ci man parce que tey su ma demee bay sama voix léegi ñu travailler ko ba mu ba ñu ba ma ba ma way ci son happy bi kon moo ma booleeg ay professionnel ñu travailler ma liggéeyal ma sama voix ba ma mën a def loolu kon maa ngi koy remercier de passage nak am na lu ma apporter ci sama art waaw donc euh, euh, nit yi nee nañ da ngeen ba nuroo. <laughs> waaw ndeysaan dañuy ànd ba nuroo parce que dafa dem daf ma bëgg daal ba bëgg samay feeling man nit ma bëgg ay ay affaire am parce que xale bu am fois la xolam set na te daf ma yéene jàmm su la gisee sax sa greffage def d'abord da ngay gis ci biir spectacle bi mu lay wàccee say kii xam nga amour daal laa dund ak moom. dama koy ñaanal kooku daf ma bëgg ma bëgg ko maa gis euh, façon nit bu mel noonu naturel free happy dañoo bokk jikko moo tax ñu mën a def danga koy ñaanal bu baax a baax ci barki Jésus mi mu bëgg. Euh, nga nekk tamit maître euh, chorégraphe euh, est-ce que affaire yi mi ngi dox bu baax gaa yaa ngi ñëw xale yi. Hmm. waa Amazon junior yi ñooy liggéey léegi hmm. parce que man damay ñëw rek jox leen li nga xam ne mooy xam-xam bi jox leen ñoom ñu exploité ko Amazon junior yi ñu ngi liggéey bu baax a baax parce que gëm nañ ko. ñi ngi may roy ci lu bari ci jikko ci comportement te bu may waxtaan ak ñom dañ may diglu di len conseiller di len xamal ne ar moom bokay def bolé ko métier donc euh, loo mënti def rek bolé ko métier ndax bo soxla lamb sa poste fajj ko ci sas ndax nit mën na lay dimbali di la dimbali ba mu yag sax bu yàggee dootu la dimbali bu fekkee ci mom rek nga euh kon dina tas sa yaakar fekk yow tamit da ngay tok da ngay mujj di stressé di am ay problème kon jamono tollu na fo xamné né donc ñi daan dimbalee ñi ñi daan dimbali sax dimbaleetuñu kon nag booy def aar bëgg a produire sa bopp bëgg def say spectacle bopp bëgg di def say son bopp il faut nga boole ko métier. donc nga bokk ci li nga xamante ne moo di SODAV lan moo la influencé ba nga dugg ci. Mhm. SODAV euh, dama ne euh, liggéey ndey la ñaanu waajur la parce que man jour bi nga xam ne ministre de la culture euh, woote woon na ne que y a quatre ans xaw cinq ans de cela. képp kuy def aar rek na nga ñëw euh, euh, kiin fat moment boobu ñu dem fa sama yaay ne ma nag dangay mu ne damay dem Médina yóbbu añ mu ne ma bàyyil loolu nga dem wuy ji ministre de la culture gis nga yéen artistes yi li seen problème mooy bu ministre wootee ci seen domaine du ngeen dem wuy ji te bu dara amee ngeen bëgg di kaas ma ne ko ah, yaay de li nga wax dëgg la si laa dem ma dem ku nekk nag yëkkati loxoom ci côté chorégraphie bëgg a bokk ci ci vote bi ma yëkkati sama loxo bi ma yëkkatee sama loxo yàlla def ñu ñëpp voteel ma côté chorégraphe ma jël ci P euh, euh, Viera yàlla na xippee àjjana Sangone Viera moom it macha allah jël deuxième tonton Jean Tamba jël troisième ci laa ne lii de ñaanu waajur la rek parce que sama yaay moo ma ne deman donc noonu laa si duggee ñu ànd ak ñoom góone presque trois ans quatre ans di bosee amul dara amul rien ñuy dem suñu doole bopp ba yàlla def soda taxaw. ñu fal ngoone après ngoone doxal euh, Angèle lañ njëkkoon fal après mu désisté après ñu fal ngoone ngoone taxaw ñu épaulé ko jàppale ko ci liggéey bi ci corps bi ñu nekk nag ñun dañ fay toog pour di casse droit ñi nga xam ne ñoo nekk si biti ndax képp kuy danseur danga nga da nga war a am sa droit dimanche danga nga war a di fayeeku say œuvre comme ñëpp donc ñun loolu lañ leen di kaasal waaw macha allah. ok donc euh, yow est ce que yaa ngi fayeeku parce que ñenn ñi am na artistes yoo xamante ne taxawaloon nañ ne dañu bëgg bees de ñëwaat ak yooyu itu mais yow est ce que yaa ngi gis sa bopp. man ci sama côté œuvre yi nga xam ne defoon naa ko jamonoy moto bi jamonoy fly to fly ci sama œuvre moom wax dëgg yàlla fay nañ ma ci sama œuvre moom dem naa fay nañ ma mais droit dimanche et tout yooyu yëpp génnagul fayaguñ parce que ñu ngi ci ciy staff beng Chili ciy donc euh, macha allah ñu ngi ci kawam daal. ummi et la politique loo ci dugal. loolu yàgg na depuis jamono yi Ablaye Wade ndax sam papa Sow Sabor euh, moo daan abal Ablaye Wade ay matériel am donc euh, Ablaye Wade di campagne 88 boobu huit ans laa am donc di ànd ak ñoom tamit ci campagne yi loolu inspiré ma woon moment boobu ma bëgg Ablaye Wade ba yàlla def tey mu jógee ci reñ bi ma xam ne tamit mënatuñ ko fal Macky Sall ñëw. 2007 moo ñu joxoon caravane bleu yi ak Assane euh, Assane euh, Ba ñu def caravane bleu yi battre campagne gagné ko yalla def nak chamet Tidiane Ba directeur CDC nek 33 Medina di suñu euh, kóllëre mam, yaayam ak adjaratu Kodou Fall ak sama mam Ulay Ba ak sen papa atoman Ba donc relation yoy taw xalé xam nga rek mag ñi relation yi yàlla def nak mom mu nekkoon impôt dan jappel sama mam si yenn problème impôt yeeg yoy yalla def nak mu bëgg dara biir medina man ma ñoo dolel ko tay ba yalla def législatif ñu battre campagne wàccatoowu medina ñu ñew présidentiel gagne medina ñun ñoo battre campagne ba am ndam medina ban relation ngeen am yeen ñaar. Euh, relation bu bo xamne digënté nijaay ak jarbat parce que daf koy wax parce que umu saw xeexal na ma lu bari dooleel na ma lu bari waaw foo taxaw wax umu saw média bu ñëwee nga ne umu saw nga ne Cheikh Ba dooleel na ma lu bari il est reconnaissant donc kon nag loolu muy def noonu di ma ko waxal moom laa koy delloo njukkal yëkkati bi ma ko jox ma kon awma fayam ndax ku jëkk yëkkati bi ma ko jox la sa soppe la koy ñaanal bu baax yàlla defal ko carrière jàmm yan bi nga xam ne moom la président Macky Sall jox ko ko mu oyof si kawam incha allah. d'accord da kon. dama jël billet bi jox ko sama jabaru pap comme moom ma yar sama yaay demoon na ba pare danga koo wax mu ne la aj naa ba pare sama pap aussi yóbboon naa ko màkk léegi nag ma jël billet bi jox ko parce que moom it dul dara moo jur sama yaraq et puis yar na ma donc am na lu mu def si man. donc ma ñaanal ko rek billet bi moom it yàlla na ko jik bi mu demee moom it ba mu ne cëpp ca Kaaba ga ñaanalul kenn ku dul man donc yëkkatiwaat kol ak ay affaire jox ma donc fonk naa loolu yàlla baax na. <laughs> d'accord donc euh, taay la ñoo ngi doon euh, dégg yaa ko defoon benn déclaration ci benn interview nga ne da am borom kër da nga doon tooñ wala da nga am borom kër. ah journaliste yi <laughs> toujours dañ may sonal um saw léeb saw léeg la laq suuf ma leen waa baax nag kon laq xam nga dama don fem rek balak <laughs> <laughs> ah, no me gay du ndaw wa baax na pour ñu wañi am embouteillage bi tuuti ah fi dafa am am moo motax sax may ñew non mënu ma woon dugg di xawa wut yoon do sax ma frappé bu def ki rek accélérer la rek de buntu bi non loolu la mais am nga jigen day xam bopom am nga donc da ngay tok rangé wu xam nga sa liggéey gem sa bop sa tamit euh, xamoo góor bu nekk nu muy ñëwee ci yow ñii dañuy ñëw ngir tur ñii dañuy ñëw pour juste découvrir la ñii dañuy ñëw pour am nuñu def ak yow benn temps mu mel ni chiffon nga ñu sàndi la dem seen yoon léegi yooyu yëpp dangay moytu mu dal la moo tax il faut nga toog daal dund li ngay dund ba yàlla ñëw. <laughs> man genre borom kër nga bëgg. Hmm, borom bi ma bëgg mooy euh, borom kër bu. bo xamne ne day wax deug manam lu mu metti metti même bu defé toj toj sax nala wax ne man defna man j'aime bien nit ku def ba paré ne ma defna man nak nit ku may neub lay bañ bu ma ci tégué sama bët moy sonna la adina ak alakhir je suis une personne comme ça mais bëgg na goor dal bu yërem jigen am yërmandé bëgg na goor bu sagal jigenam di ko bëgg na góor boo xam ne ne parce que l'homme est infidèle mënuñu am l'homme góor bi ñu bëgg bëgg naa góor bu xam sa valeur daal waaw góor bu xam sa valeur ba pare di yërëm la góor bu amee sa yërmande rek mën nga am ci moom lu ne. ba nga nekk ñaareel. man bëggatuma nekk ñaareel. <laughs> <laughs> avant bëggoon naa ko quoi mais léegi bëggatuma ko parce que ñaareel neexul <laughs> ñaareel compétition la mais nit ak këram kese dara dàq ko. waaw man de loolu laa bëgg. day dégg naa ñu ne ñu baax ñëpp am nañ jabar de. ah góor yu baax yëpp am nañ jabar waaye am na góor yoo xam ne ne am nañ seen jabar yi waaye yoruñu leen liñ leen war a yore hmm. waaw dunduñu ci happiness daal waaw xam nga jeeg waa jeeg day xajam xam nga man dama fan benn jeeg euh, sama rakk la waaye dama ko fan muy moomi Dani Gueye hmm. li tax nag ma fan ko mooy euh, moomi Dani Gueye original laa ko tuddee. xam nga tax ma tuddé ko original mm-hmm. ndax fay jël auteur tout temps jéeg la bo xamné sa yo ko féké di ko naw ci comportement am jël ay diplôme am jàng ba waron dem ci benen place nek fa lenen wala ibi entreprise bopam jël ay diplôme am jël lepp jox ko kërëm ñew tok yëkk ci entreprise am yoy jéeg ñoy référence mom koku mom sama rek waaye dama ko dama ko naw lan moy sa projet samay projet nag mooy euh, le 13 mars incha allah anniversaire bu mag boobu confirmation boobu may def sama 25 ans de carrière ànd ceeg samay soppe samay am di jàmm ah ànd ceeg nag samay mbokk alpulaar onon bandiraɓe alpulaaren mi salminimon onon foof on jaaraama biddo umu sow ari ñëw naa nag di waajal nag incha allah anniversaire bu mag le 13 mars naa ko ñëpp ndax umu sow moom ay soppe rek la am macha allah dal moy projet bi suñ si paree am na tournée ñuy xaar euh, sama manager mi ngi koy lijjanti ñu dem yëngal Europe ñëwaat rek inshallah après nag euh, comme ambassadrice la lutte contre le tabagisme ndax mooy thème anniversaire bi euh, damay bëgg tamit defaat beneen manifestation bu yem boo xam ne dama ciy sensibiliser waale ñi nga xam ne ñooy tux ndax bërki dem rek am naa benn xale boo xam ne da doon tux góor la mais si sama oto laa toogeeg moom wax ko lan la mën indil nit day yak sa poumon expliquer ko cancer yi lu ci nek mom indi ba convaincre ko mom bayina na xam nga lol dafa daf ma daf ma toucher barki dem ah neena ma dotuma ka defati ma ko def sa nga jema xalat len wala nga nante mante wala façon yoy waaw man nak suma sañon ñu bàyyi tox te xamne tox mom lu loré la day yak sa poumon te bo beugé carrière bo ne di nga yag ci aduna bi dundu ba dundu la affaire tox moom wax dëgg yàlla képp ku may seetaan nekk sama fans nekk sama am di jaam soo ko munee remplacer leneen lu gën tox euh, nga remplacer ko ndax dinañ def thème mu théâtre ci anniversaire bi pour wane ne cigarette baaxul day lor Amazone yi liggéey ko ci chorégraphe en même temps. lan sama dernier moom mooy di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal euh, Doudou Yaye Kati mi fi génn barki dem xam ne yàgg na bégal Sénégal ndax bugguma artiste dem ba génn àdduna ñu di ko ketal loolu dama ko bu mu nee ñàkk ci àddina ci Sénégal yàlla bu mu amati ndax duudu yaay kat bi mu feebaree xëy na nit ñi buñ ko yëgee woon mënoon nañ ko dimbale jàppale ko ndax man dama contre nit ku génn àdduna ba pare ñu nekk si rajo yi di ko ketal loolu dafa ñaaw nañu jàppale waat artistes yi encore une fois ministre de la culture dooleel leen euh, ñu dooleel leen parce que artistes yi daf ci am ñu sonn lii abindoor sama xarit bi ne du yelwaan gor rek ko sonn du ma du yelwaan te rus naa ñaan artistes yi noonu lañu mel artiste bu amul oto sax rus na dugg taxi rus na duggu kaar te ñi si dëkk bi bari fi lool bugg naa tam ñu seeti leen tàllal leen loxo jàppale leen avant tamit ñuy bàyyi ba ñu dee ñu leen di rendre ay hommage wala di leen ketal ndax ma loolu bokk na si lu ma gën a metti si lu ñuy defal artiste waaw artiste bi tamit am fulay jomam ci bi muy toll ci ndawam mën a góorgóorlu am lu mu réaliser ba ëllëg bu fi jógee ñu ne lii kat moom moo ko fi bàyyi loolu sama fierté la di félicité waat Sadio maane ci li mu keroog dama jooy parce que dama bëgg sama doomu réew buy siggil sama réew ndax moom waa Casamance sa dëgg la mais wan tey dëkk ba mu dëkk Casamance même bu ñu xamul woon euh, dëkk bi léegi yóbbu na dëkk dëkkam fu sori yóbbu turu Sénégal fu sori kon Sadio maane ñu ngi koy félicité du font du cœur parce que keroog li mu def. kuy sénégalais ngay am am fois am xol bu set keroog sa xol war na ci set loolu laa bëggoon loolu laa amoon ci lu may wax di ñaanal jeunesse bi ne leen nag ñu muñ te góorgóorlu te xam na ne tamit loo xaarul rek doo ko fi fekk nit dangay nangu ñafe cak-cak yaa ngi fi xale yi di ko jël moto yi journée bi di nga mën a am sa trente mille wala dara ñu jéem a góorgóorlu ñu liggéey ndax toog si buntu kër yi naan ataaya naan liggéey amul su fekkee continuer nañ ci loolu di yaakaar gouvernement wala di yaakaar keneen wala di yaakaar sama frère bu nekk Europe mu yónnee ma wala dama bëgg jël gaal bi gaal bi baaxul donc nañ ko bàyyi parce que du solution ndax nit li ngay dem pour ñàkk sa bakkan gis naa ne du solution solution nag mooy da ngeen bëgg teral seen waajur góorgóorlu leen xool liggéeyu sew sewaan yi ngi fi ngeen jàpp ci te ma ñaan leen bu leen jëlee ci gaal yi ndax lu ñuy metti la ci suñu xol ñuy gis suñuy doomu réew ñuy dem ba dëkku yi di fa dee loolu rek laa amoon ci message bi ma doon ñu benn acapella. <laughs> acapella bi ma leen di may ndax daan nag mooy xàppi bi rek. <laughs> <laughs> am euh, kon ñu dem ci xàpp bi di ko may gi gigi di ko may sama fans yëpp macha allah di leen wax na en live incha dañ koy def ci Sorano ak yeneen morceau yu neex mbalax incha allah Oumou Sow nag ci yeneen facette sañse yeeg ngi ci biir ndax Biz Collection mi ngi ci biir ah Amazon boutique mi ngi ci biir lu gën a métti fii de maa koy def ku gis yaakaar ne maa fi chef wax ji neex man maa ko def ñàkk fa wéeru wéeru samay xeef weer bu dee su fay jotee nga daw ñibbi IGFM. tey fay ñu tey suba nga fuy di alu fii dama bëgg happy dama tere happy yeah dama bëgga happy yeah xoolal yow yow noo tudd faama maam faama dafa ci ekkati ose ese def jongama borom question sax di gën di jongama dafa ci ekkati ose ese def jonge <laughs> boo nekk yu bees yi boo ñëwee nag incha allah Sorano ci laa koy génne. waaw incha allah. <laughs> <laughs> internet eh, ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi nekkoon nag eh, ki nga xamante ni eh, moo di Oumou Sow di ko jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba beneen ak keneen jërëjëf.